sëriñ bi nee na mi ngi nuyu bokk jullit yëpp di bokk nuyu bokk taalibe yëpp di jokk bokku lislaam gi nga xam ne moo ko booleeg ñim bokk lislaam te suñ boroom santaane ko innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum nee na itam ñu xam ne ni ko sëriñ bi daa waxee rek inna cheytaana lakum aduwun fattaxisuhu aduwan benn noonu rek lañu am mu kon mboolem ñu bokkal këri diine yi di këri lislaam mi ngi leen di siyaare di jokk bokku lislaam bi di jokk bokku der di fàttali nag mboolem ñi nga xam ne bokku julli leen di bokki taalibe bi seen digg ñi ñu seqal lislaam jëpp ñu ci wax lu baax di ci wax rafet lépp loo xam ne mooy indi ak benn la ci seen diggante ñu di ko gën a sàmm ngir xam ne ñoo bokk lislaam ji te ñoo bokk réew mi ginnaaw loolu nag sëriñ bi kàddu yi nga xam ne yëkkati ne ko jëme ko ci bokkiteel bi ndax lii mu ma sant itte ji ko itteel la itte ji ko ñor la moo tax ni ko sëriñ Abdul Ahad ka waxee xam nga ne bi ak Cheikh Sidi Moustapha ñëwee la yëkkati woon dëkk bi dénk ko sëriñ Sidi bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëw na itam yee salaat loola xamal ko ne ko ne ko ko Cheikh Sidi Mokhtar dénkoon nu ko ëpp ni la ko ko dénke loolu waral Abdoul Ahad Ka wax léegi ci turu maire wu dëkk bi ndax maire bi alali sëriñ bi loolu itam lu mat di fàttali leen ndax Touba bokkut ak yeneen dëkk yi ci des kon ñu ngi nuyu ñëpp sëriñ Koso Mbàkke mi nga xam ne mooy taaw sëriñ bi ñëw na ci ndigalu sëriñ bi ni mu ko koy sante ci lépp loo xam ne liggéey bi dañu di ko ànd euh, ba lépp du mat bu noppee ànd leeralaat ko kon sëriñ si di nii ko sëriñ Abdul Ahad Ka waxee rek noonu la demee moo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha nag santoon ma ne naa jot li mboolem yéen ñi nga xam ne yéenee chef de village ci dëkk bi ak ñi nga xam ne ñooy délégué di quartier yi ndigal yi ndigal yi mu leen di bëgg a sant ne dafa bëgg ñëpp maase ci xam ne fii mu toog di jataayu Serigne Touba yàlla suñu borom moom mi nga xam ne moo ko tànn teg ko fi te suñu borom wax ci alxuraan ne allahu ahlamu haythu yaj'alu yi muy bëgg-bëggu Serigne Touba itam ndax képp ku fi toog rek Serigne tubaa seet na seet na ko tànn ko ba mate ko mu teg ko fi nee na li mu fas yéene nag di ko xamal bokk taalibi yëpp ak bokk julli yëpp mooy ne dëkk bi Serigne Touba da ko ñaan suñu borom ba suñu borom may ko ko muy dëkk boo xam ne yàlla def na ci histoire ci taarix kenn mës sa fàttaliku fu ko nit moomee kon muy lu ko suñu borom dencaloon ba di taw feexam xam ba yàlla def suñu boroom jox ko ko nee na Serigne Touba ñaan fi mboolem li bëgg ci dëkk bi danaa ci dellu siwaat lépp suñu borom bay ko ko nee na ba sëriñ Touba ñibbisi Touba bi sëriñ bi ñibbisee nag mboolem njëkk fi masa wutu ñëpp tàmbalee ci ci ko fi jëkk wutu di a Cheikh Mouhamadou Moustapha jaar gi a Cheikh Mouhamadou Fadil jaar ci Cheikh Abdoul Ahad jaar ci Cheikh Abdoul Khadir jaar ci Cheikh Saalihu Mbakke jaar ci Cheikh Mahmoud Baara Mbakke ba jaar ci Cheikh Sidi Muxtaar Mbakke ba yàlla def moom mii lépp ndénkaan di nekk ci loxo bi nee na nag fas na yéene li ko ci war mooy na ko ñu jëkk ñi daa defe mooy wattu ak sàmm lépp loo xam ne jëm na ci dëkk bi mu fas yéene ko wattu sàmm fa ngeen xam ne ndénkaan bu Serigne Touba la ndénkaan bu nag nee na képp ku muy àndal dëgg lay ànd ak yow kunu ma mahal xaqi fa kallafakumul amru moo tax waxam ji ji mu weesu yéen ñëpp ko déggandoo loolu rek la wax naa ko fàttali ci biir fàttali gi itam muy digal ñi nga xam ne yéene chef de yi tàmbalee ko ci délégué de délégué yi ne ci suuf ngeen xam ne dëkk bi Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu koy def ab village ci turam dadaa nekk ku fi nekkal Serigne Touba ba nëgg ni itam noonu lay demee yaa koy jël délégué ko nit ngir kon ngeen xam ne bu fekkonte ne mën na faa nekkal boppam moo fay nekkal boppam kon yéen ñi nga xam ne yéen lañ ko dénk nag tàmbalee kon ci délégué délégué de bi. nañ xam ne fu ñu nekk ñoo fa war a nekk ndaw ndawi sëriñ bi nekk fa ay loxoom nekk fa ay tànkam sëriñ Tuubaa ne ku ko nekkal ci barab war ngaa fexe ba mate ko ba ku la gis doo xeeb coow dara ba xam ne yow mi mate ngi jata jataayu sëriñ Tuubaa ca foofa kon ñiñ dëkkal war nañ ñi gën a sàmmonteeg ndigal yam fi joxoon ndaw loolu am na lu ma ci sant dinaa ko wax di ko fàttaliwaat nee na na ci ñëpp maa si gën a farlu gën cee góorgóor képp koo xam ne gisati nga fa loo xam nga ne dëppootoo ki ndigalam nga fexe ba saafara ko ca na nga ko war a saafara bu la ta chef de village ba la yërif nga jàllale ko ci moom ñu xam ne sëriñ bi lañ fi nekkal te ko ku nekkal sëriñ bi ci barabkat war ngaa góorgóorlu ci te taalibe yi ndax loolu la fa bàyyi bu tëwee chef de village ba mën a ba ba jàll ko itam ñu indi ko ci kim teg ci maire bi moo moom la fi sëriñ bi teg muy saytu ni dëkk bi doxe ci wàllu adduna bi kon lu leen ci te rek ngeen yóbbu ko ba ci moom ku ci ne kilifa ga nga dëkkal ci quartier nga xam ne ndawul sëriñ bi la loo xam ne bëggati nga ko wala nga xalaat ko na nga dem ba ci nga àgge ko bu tay ñoom ñëpp nag danañ ko indi ci man boo agsee ci man itam nag bu fekkee xool naa ba xam ne mën naa ko lu jënte te sëriñ bi du ko yëg fa saasa ba def ko bu dee loo xam ne kàddu sëriñ bi ndax kàddoom la yoru moo ma cee joxaat digal ngir mu gën a gaaw boobaa itam ñu def ko sëriñ bi nee na doxeen woowu yi nga xam ne moom la fekkoon ci kilifa yu jëkk yi def ko ba mu agsi ci moom loolu la fas yéene aar sàmm ko te teg ci bakkanam moo tax rek mi ngi ñaan ñëpp ñu ko loolu nga xam ne noonu la di ndénkaanu Sëriñ Tuuba ñëpp sàmmule ko loolu bu ko defee itam jox na ma ndigal ne ma ñetti weer yu jotate mboolem chef de village ak délégué de quartier yi naay dajeeg ñoom kenn ku ci ne sab quartier lañ fa bëgg ak la nga xam ne am na fa ci jafe-jafe nga di ko dajale buñ bokkee toog nga leeral ko lépp ñu xool lu ñu ci mën a saafara bala ñu dajawaat loolu bokk na ci ndigal yi nga xam ne sëriñ jox na ko danañ ko sàmmoonte kon loolu mooy la jiitu ci ndigal yi la ca desaatit mooy li mu ne bëggatu ko fay dégg mooy di saafaraal sa bopp loolu itam ñu ngi koy feddaliwaat bu baax kon moom moo mën a dox suñ diggante jafe-jafe àdduna kon lu nit bëggate ak nu mën a demee rek na fexe ba mu agsi sëriñ bi te sëriñ bi kat waxoon naa ko ca màggalu Poroxaan ga mu fattaxatan lahumul abwaab la jëmm la joo xam ne ubbalul ay buntam kenn fu waaye jóge rek boo agsee dana la diglu ak koo mën a doon te dana la jox ci waxtu loo xam ne sax boo gàttam xel li fi bàyyiwoo sëriñ bi du bàyyi kon Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla def na kilifa la goo ne kilifa gu ma sëkkalam doon la kon loolu noo ko ñëpp bàyyi xel yàlla def it tawféex ci moom ndax képp ku fi ma sa nekkal sëriñ Tuubaa rek tërbiyewu na ba làq sa ngiram nam daan doxe ay kilifaam itam nag ñun ñëpp nañu fas yéene doxee moom noonu te yàlla defal na ko ci tawféex ñëpp noonu la ñu doxee moom. danaa wax ne sama kilifa dama koy bàyyeek sama jëmm dama koy dama koy bàyyi sama jëmm bàyyi ko jëmmam kon nag loolu ñun ñëpp nañu fas yéene ànd ak moom noonu ngir xam ne ku ko xam ci yërmaane ji mu am ci jullit yi sax laay wax am ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi googu kilifa ku ko yàlla defal war ngaa gën a dalum xel te koy ñaana waxtu wu nekk mu yàgg fi te ànd ak wér ngir xam ne moom lépp loo xam ne war na ko rek xam na ko te dana ko def ndax ba ci yi fi mujj xew ca tàmbali ba lam ci jëkk a wax ba ca mujj ga genn kàddu rek la dafa wax ne jàngoro ji mbindeef mu yàlla wàcce ci kaw suuf la waxtu wu ko jeexalee rek mu jeex nee na Sénégal itam bañ amee Serigne Touba lañu am jàmm kon moom lépp lu ngeen gis mu def ko rek wane aw yoon la ci jublu waaye moom xam na ne ku xam diggam ak boromam la ku xam diggam ak Serigne Touba lépp lu ngeen def ko mu mu ci ci saaxiir si rek daa bëgg a wane aw yoon te ku jiite dangaa war a wan nit ñi fay jaar moo tax yii weesu nag lépp lu ci xew rek def na ca la mu war a def taxaw na ca la mu war a taxawe ci lu ngeen njëkk ak lu ngeen yëgut bu nit ñi doon xam li muy daj ci yërmande ci diggam ak soxla nit ñi ñëpp seenu xel dana gën a dal ndax li ngeen ci xam li ngeen ci xamutu ko kon la cheikh Mouhamadul Moustapha Fadil daa wax rek bi ñu ñaanal cheikh Serigne bu Mbacké ak cheikh Mouhamadul Mourtala ak soxna May daa waxoon ne seelukat xamut li xadd di dajeg ba ba ba ndox mi ak siw ci moom kon ñun itam nañ xam ne li tax tàngoor yu ak siw ci ñun kat cheikh Mouhamadul tax kon nag yàlla na fi yàgg tànn ak wax na ma it nag ne. mi ngi jot li taalibe yi ak cant ak ngërëm ndax xam na ne moom bëgg-bëggam bépp génn Sëriñ Tuuba loolu itam lu ko ñor la dane man nag ma santal ñi ma bokkal Sëriñ Tuuba ndax liggéey Sëriñ Tuuba bii kat ñoom ñëpp maase nañ ci xam ne ku ci ne la ma yéene sama bopp laa la yéene waaye ñoom ñëpp itam ànd nañoo man àndin woo xam ne kenn ku ci ne xam naa la nga yéene sa la nga ma yéene yéene woo ko sa bopp neen loolu yëg na ko mboolem ñi Serigne tubaa defaroon seeni maam dégg nga lim leen seeral wax na ne foo gisal la naqare bayu ko ci ñoom ñooñu itam na seen maam yi àndoon ak Serigne Touba ànd nañ ko moom ndax kenn ku ci ne addiyee ja nga daa joxe yokk nga ko kenn ku ci ne itam yéene nga ko ndam yéene goo xam ne boo soñoon ku fi jaar te am ndam rek moo ko yëpp nee na loolu lépp nag na ngeen xam ne xam na ko waaye nag Serigne Touba mi tax ngeen àndeek moom noonu mi ngi leen ñaanal. kenn ku ci ne la nga ko yéene ak la ngay jëf ci moom yàlla la ko Sëriñ Tuubaa fay taalibe Sëriñ Tuubaa yi nag nee na ñoom moom dafa jàpp boppam ci biir taalibe yi ndax nee na Sëriñ Tuubaa dafa masa daje ca njaareem def bokk yi nii ci wetu ndajoor def taalibe yi ci wetu càmmoñ daane yéen taalibe yi na ngeen ma ruus ci sama bokk yi ndax ñoom man rek lañ am daan yéen sama bokk itam na ngeen ma moytu ci sama taalibe yi ndax ñoom man rek man ñoom man rek man rek lañ am ñoom ma ñoom man rek la am nee na nag moom ba mu déggee wax jooju la jël boppam jaay ak njuréelam jënd ko taalibe jàppe boppam ci biir taalibe yi moo tax nag yitteem jëpp mooy lu leen aar ak lu leen sàmm ak yërmande jum dox diggéey mu ñoom ne itam mu ngi leen di sant bu baax lépp lu ngeen dégg mu wax leen ko da leen a bëgg dimbale te nit boo ko bëggee dimbale danga koy wax dëgg waaye nag nee na sant na leen bu baax gërëm na leen ndax cant gi ngërëm li mooy daaw fii lañ toogoon mu santaane fi ay santaane te boobu bi mu koy santaane itam dafa woo Serigne Sidi muy jëwriñam tegaat ko ci loxoom Serigne Sidi wooluwaat sëriñ Modou Lo Ngaabu mu jër safir amaan tegaat ko ci loxo muy tere yi mu doon tere ci dëkk bi nee na ba mu ko teree taalib bi yëpp yëpp yëpp maase nañ ci jëfe ko ba kenn desul nee na loola xam na ne seen bopp ngeen koy defal waaye nag moom mi fi nekkee sëriñ Tuubaa te fàttali leen digal li ni ngeen ko jëfee sant na leen ci gërëm leen ci li ci mujjaat itam mooy barki démb bi nga xamee ne xew-xew yi dëkk yi xew ci dëkk bi xew na ndax booba itam lépp xam na ni mu demee ndax junjal la ko boppam leeral na ko ko jëru del siwaat waaye ba mu yëkkatee kàddoom kenn ku ci ne la nga doon def da ko bàyyi wëlbatiku la la naqari woon nga def ko muy la neex nee na loolu na xam na ko kon nag mi ngi leen di ñaanal ci loolu yi nga xam ne fu ngeen déggee ndigalam xam na lu leen di jariñ la ngeen bàyyi la ngeen jàppoon sëriñ Touba mi tax ngeen di jëf loolu yàlla na leen ci defal tawféex te xam ne Serigne Touba waxoon na ne. waxtu ma sante nit def day am lu jug ànd ak moom bu jëfee ndigal mu dëkk moom mu ne waaye bu jëfewu ndigal la nag day dellusiwaat ci man di ma xamal ne dem naa waaye awma fu ma ne kon jëfe ndigal rek am solo kon nag sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaax ñëpp ci li nga xam ne mooy bëgg-bëggam ci dëkk bi xam ne sëriñ Tuubaa kat ba muy gàddaay di sanc dëkk bi dafa am lu taxoon mu sanc dëkk bi dafa waxoon ne daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi wax na itam li tax ma sanc dëkk bi mooy jàng ak jàngale ak ak tërbiyo nee na loolu Serigne Touba sosi woon dëkk bi nag waxtu wu nekk nañuy fexe ba ba nañuy fexe bay góorlu ba di ko sàmmali li taxoon mu san mu sanc dëkk bi ba képp koo xam ne gis ko ku dëkk ci dëkk bi rek bu la gisee xam ne kii kat yarub dëkk bi la te loolu Serigne Touba fàggul nañu ko la ca nag jug jug jëm cee rek lay doon la ca dolli ko waate mooy dëkk bi dëkkub xéewal la Sëriñ Tuubaa dafa ñaanoon suñu borom ne ko ci mat la u foofu ni wa maskani salli minal fujjaari wa mamnunna ala al ahli bi ma in jaari kon yàlla nañu yàlla musal ci ñi dëkk ci dëkk bi te fi nekkee lu neexul sëriñ bi nit ki nga xam ne dafa ñaanoon ne wajbulaha al xayra min al jihaati as siti wak fiha an il loola war a Tuubaa lu jamono naqari naqari lu mu diis diis doo dégg doo dugg ci génn kër ba xiif wala nga mar loolu pàgguteefu Sëriñ Tuubaa la moo ñaanoon suñu borom itam xamal ko ne ko wax ne wali siwaaya yantahi day day xus zaman xat-xat xat-xati jamono jëm na ci fudu man tayifa ocha yi tayifa xodaa yi kon nag la ca des nee na xam na ne Sëriñ Tuubaa dafa woote wax ne yaa ahla barri yaa ahla bahri honjoli bari bahri soxaay bi mu wootee nag ñëpp ñëw bi mu wootee ñëpp a ñëw ku ne nag fa nga jóge dangaa gàddaay indaale la nga yor looloo waral kon dëkk yu bindoo ni mu bindoo waaye loolu lépp itam nañu xam ne fàgguteefu Sëriñ Tuubaa boo amutoon dëkk bi saa su xëyee nit dana faatu waaye euh, fàggu gi mu fàggu loolu te dëppoo ci boromam moo tax suñu borom may ko loolu nim ni nim ñu fàggule fàggule kaaraange rek wax ne wan fi ba wal balaaya kullaha anha wa tayib shurbaha wa aklaha looloo waral mbas mii fi xew ni ko sëriñ bi santaane damay wax ne butul woon nag li ko ñu jiite réew mi santaane itam Cheikh Mouhamadou Mountakha du yëkkati lu tollee deux cent millions di ko def ci loo xam ne ay nax la kon butoon toon dara itam boo ko sëriñ bi santaane rek ñëpp duñ ko war a def kon waaye jàngoro ji ku dugg ci biir dëkk bi gis ni dëkk bindoo xam ni mu bindoo danga xam ne sëriñ tubaa aar na leen ci loolu kenn nattabloo ko ndax boo xoolee ndakaaru euh, li mu ëppee Touba bariwut te boo xoolee jàngoro ji doon na fa ay yoon yoon loo xam ne moo ëpp fii kon loolu lépp itam ñoo xam ne pàgguteef Serigne Touba bu mu fàggul waa dëkk bi la kon loolu itam nañ koy sant yàlla te yahmado ala dawro shukran li ñuy fayee Serigne Touba nag mooy jug jëm ci moom kon nag sëriñ bi neen mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fàttali itam nawet bi mi ngi dugg si te daaw xamee xam ngeen bi mu jubsee lim santaane woon ba ñu feexa ba dëkk bi gën a set feexe ba gën a sekkar ci tiwo yi yooyu yëpp itam na nga ko defe woon euh, sëriñ Cheikh Abdou moo ko taxaw woon daaw ren jiitam balaa nawet bi ñu góorgóorlu waat ci feexe ba nañ ko defe woon ànd ko njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ci njëbu ci jiitale sëriñ Cheikh jëmb mi nga xam ne moom la ko tegoon ci loxoom eh, buñ ci àggee lépp dis sa ko leeral ndax dëkk bi itam ku fi ñëw rek yaakaar la fi indi ndax Serigne Touba dafa wax ne ku fi sam xel indiwu saw xel indi la fi moo tax sëriñ bi bu sañoon kenn nekk ci dëkk bi du tumuraanke looloo waral itam mu ngi sant taalibe yi nga xam ne ñuy góorlu ci biir loolu ndax lu mel ne waa Touba ca kanam xam ngeen ne diggante daaw ba na jëf yu bëree bëri. jëf nañ ko ci dëkk bi ci wàllu leeral dëkk bi wàllu setal dëkk bi wàllu jëmbat fi garab di ko ànd ak ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi teg ci dëkk bi muy maire bi di Abdou Lahad kon ñoom itam sëriñ bi leen di sant di sant mboolem daayira yi nga xam ne quartier yëpp boo dem lii jamono ji xewal ngir bëgg fépp set Touba ñoo ci jiitu ndax ba ñuy xewal loolu yàgg na te lépp itam ci pëstéef lañ koy def yaakaar payoog suñ Touba amu ci kenn koo xam ñi la ci joxub dërëm kon sëriñ bi nee na taalibe yi daal mi ngi leen sant leen gërëm di leen xamale itam lim leen ëmbal mooy yërmande lim leen àndal lim leen ëmbal mooy bëgg ñëpp jariñu lim leen ëmbal mooy bëgg ñëpp seen digg sëriñ Tuubaa euh, seen posté waxtu wu nekk muy gën a yees di gën a sell te loolu nag sëriñ Tuubaa mel leen fàggul ko taalibe kon nag ñi ngi jeexale foofu kàddu yi di nuyu ñëpp di sant ñëpp di fas yéene itam ñi sëriñ bi santaane ñëpp gën a góorlu ci loolu te xam ne ndigalu sëriñ bi rek moo ñu jëriñ te sëriñ bi kat ku am ci am ku am yërmande ci nit la ndax koo xam ne amul waxtu wu noppalu saa su xëyee ba guddi ginnaaw jaamu yàlla yi ma nga ci liggéey ba di tey nit ñi loolu nag sëriñ Touba moo ko santaane woon ndax moo waxoon euh, Cheikh Mahoudou Moustapha ak Cheikh Mahoudou Farid ne leen seenu jaamu yàlla li ci ëpp ginnaaw li yàlla san farataal ci yéen mooy di jonjoog nit ñi di dékku seeni tartar ak seeni métti métti kon nag képp ku bokk Serigne Touba ña nga dëkkal di taalibe Serigne war ngaa fexe bay xam ne li la Serigne Touba sant ci sa digge ñoom ndax waxoon na ne li ma leen war loolu ci seen digge yéen mooy ak yëg ak itteewoo leneen li ci des lépp maa koy defal sama bopp kon nag loolu na ko ñëpp xamee noonu kon ñu ngi jeexal foofu kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi seetaan euh, seen site bi préféré muy 28 Pro TV ñu ngi am mbégte bu baax mu nekkoon nag euh, déclaration boo xam ne nii mu ngi ba nga xam ne moom mooy tolluwaayu dëkk bi. tàmbale ko ci euh, borom dëkk bi ñi nga xam ne noonu la ko ñaane woon suñu borom ba may ko ko. xam ne nii moom la dëppook liggéey sëriñ bi waaye tamit mi ngi ko ñaaxee nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy délégué ci quartier. bëri na li fi nekk ci ay quartier bëri na. boo taxal ñoom ñëpp la ñu convoqué woon tey eh, ci turu xalif bi ñu ñëw wuyu si ko fas yéene nag eh, eh, ànd ak moom ci liggéey bi ne sàkku na ci képp koo xam ne délégué de quartier nga ne fa nga nekk rek war nga ko fa nekkal di ko jotli ay kàddoom ba yegg si chef de village yi ci liggéey bi wax na tamit ci ko ci kon sàkku na ci tamit ni mbokki taalibe yi ñu war a xam ne maanaam feebar bi am na ndax ku yëkkati loolee booy naataable ne am na amut da nga xamul rek fii jamono ji toll mu sàkku nag ci maanaam ñi askan wi ñu gën koo le li nga xam ne moom mooy dëkk bu sell bi di Touba Touba nag nit ñi tamit ak taalibe yi fu nekk rek du fi waaye waaye di fa jóge di fa ñëw ñàkk ci ay kàddu yoo xam ne nii ki nga xam ne moom mooy euh, Baye Galas euh, ñu ngi lay ziar baax a baax euh, sëñ bi wax na sàkku na ci tamit ci délégué de quartier yi ñi nekkal ko ci nga xam ne bërëb yéenu nekkee mu ñëw ja ànd ak ñoom ci liggéey bi di xam mooy dëkk bi noo gisee tey déclaration bi. waaw xam nga sëñ bi moom naka jekk yoon wi mu jaar rek ci la jaar waaw faw muy ku jaay pàkk ñëw ci moom mu am ci pourcentage dañ ko bàyyi ci délégué de quartier bi mu yor fa doxiinu sëñ bi dégg nga ni ko sëñ waxee kenn ku ne fa nga nekk yaa fay sa jëmmi sëñ bi na nga defar sa jëmmu defar sa jikko ba ku xem ku gis ku la gis xemem sëñ bi loolu mooy yittey taalibe yi yittey quartier bi nga di ko xam soo ko xamee man koo faj baax na soo ko munta faj nga jàllale ko ci sa chef de village chef de village bi bu dee lu mu mën a régler fali laay la am bu ko mënta régler mu jàllale ko ci maire bi maire bi bu ko mënta saafara dana ko andi ci sëñ Cheikh loolu moo tax mu ne bëgg naa daal ñu nangam yooyu yëpp nag bu fekkee ne délégué de quartier bi du ko du du mën a agsi ci sëriñ bi yaakaar naa sëñ bi daal daa bëgg ñi ko ci biti di ko renseigner muy xam li xew ci dëkk bi mën koo moom mooy ndaw yi a eh, la nit ñi kon dañ cee war a ànd ak gëm yàlla nga xam ne maanaam li ko fi indi mën na ko fay jëlewaat ci lu gaaw waaw loolu it li ci sëñ bi wax mooy daf leen a njëkk a sant ba noppi daf leen a sant naa leen ci bu ma leen digalee ngeen def waaw ñun ñëpp sëñ Tuubaa ñu woo ñu wuy si ko kon nañuy bàyyee suñ bopp sëñ Tuubaa mu dañu fajal te it nag kilifa moo gën fajuk euh, nit ki ndax nit ñi bu ñu jógee mënuñoo faj dara lu weesu ñaxtu yàq seen alal waaye nag sëñ moom bu yëkkatee kàddoom lañ bëggoon lépp dana saafarawu moo tax ba sëñ bi déggee seen soxla ba mu yëkkatee kàddoom Sénégal gépp am nañ jàmm mais kon yaakaar na ndawi Tuubaa itam li ma leen di tàggate mooy ab yar ku amub yar mooy euh, sëñ mu sëñ Sidi Mokhtar waxoon na ko ku amub yar ku amutub yar doo yor dara ku amuti teggin doo teggi dara kon li ëpp solo ci doomu aadama mooy ànd akub yar ak teggin. jërëjëf. Euh, kon mbokk yi rek mu nekkoon euh, Baye Fallou Gallas Sylla dekk kenn ci nga xam ne moom mooy conférencier waaye itam di kilifa boo xam ne xam na bu baax a baax yoon wi kon dégg ngeen bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy délégué de quartier ñu xam. jafe euh, fii la ñu woon nekkoon ci résidence Cheikhul Khadim ci euh, déclaration bi nga xam ne Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir indil woon na ko ci turu Serigne Mountakhal Bachir.